loo xam ne da ko war a fay fayoo ko nga def ko sa poos sàcc la wala du sàcc. <laughs> kon moom daa mujjee boole ñaari. dafa mujjee boole ñaari. moo dugal boppam. <laughs> xam naa ci moom lañ jëm si sax parce que sujet yi mu mu waxoon na ci pratiquement ba pare. boo mm-hmm. tax ñu ci euh, woon ci yow. Mm-hmm. mais moom gis nga communiqué bi. des médias génn ya ñoom nag. Ah. ne li ñu wax mooy que ni le ministre bi waxul dëgg maanaam ci gàttal. ñu mhm. baal ma ci kàddu gi day day ci fen ah, olof lañ ñu wax ko ci olof. mu leer rek euh, yaa ngi. <laughs> bon nga xaw <laughs> na gudd tuuti. <laughs> voilà moom en tout cas li ñu mën a jàpp mooy. xaw ma man buggaan laay wax xaw ma. en tout cas texte bi. Ah, bon texte bi man man amoon naa ci amoon naa ci ay doute ni Dmedia ñoom ñoo ko bindaa parce que vraiment texte bi boo ko liiree Euh, mais ah mais c'est écrit non pas bari ay faute sax mais mais ni ñu waxee nii ci entreprise. y a de l'insolence quoi. mais oui vraiment non y a discours opposition la gën a non y a des termes insolents yoo xam ne. man texte bi la ñu njëkk a envoyé mais j'avais des doutes que ne est-ce bi est mais par la suite. tax ma naan la la la gis que ni des médias wala dama naan des médias def mais c'est écrit par Bougane. voilà euh, je pense que forme d'écriture c'est ah, man xam nga dama man cool li du ma si sax sori euh, man damaa close coow li ba pare. mooy lan ngay wax lan Bougane soo génnee pour dire ko voilà chiffres yi c'est faux ak yu mel noonu. Mhm. man Bougane laay wax ah je vais pas de des médias. Mhm. mbir mi dafa leer ñoom gannaaw ba ñu génnee ne dañ leen bëgg jaay doole dañoo bëgg a tëj seen ay organe lu ne ñu wax ko. Mhm. mais lan moo tax depuis que euh, ñu génne la ministre génn ak preuve à l'appui et d'ailleurs préciser ko chiffres yi ba ma ko defaree ba noppi dama ko jébbal euh, waa presse bi. ci jotaay ne leen kat man lii samay chiffre lañ bu fekkee yéen da ngeen am yeneen chiffre ngeen génne yooyu noonu donc lii mu génne looloo am et d'ailleurs boobu ba léegi man déggaguma ko ne lii du dëgg wala ameluma lii mhm. le groupe GFM bi nga xam ne daanaka ci wàllu fiscalité bi 40 pour cent ci fiscalité wu groupe de presse yi moom groupe GFM moom moo ko ameel état est-ce que dégg nga ba tey ku génn ne du dëgg wala ameluñ ko lii wala dégg ma loolu xam nga lu ma dégg sunu données personnelles lañ génne secret fiscal dañ ñoo waroon suturaal yooyu laa fi déggagum ci ci la c'est le même service fiscal Sénégal fii ñaari ñaari ñaari ñaari service moom nag nee na wax nee ne ah. parce que nee na quarante milliards boo <laughs> yoo xam ne moom. après commande tamit quarante milliards quarante milliards quarante milliards deux milliards tamit voilà. Euh, nit ku sañ a toog ne la terre bii dafa yeb vingt trois mille aller vingt trois mille retour muy vingt six mille a xamee onze milliards ak deux milliards sëñ bi koo calculé na dem xoolal utal leen ko ku ko xam naa boo calculé ba si biir dina xam ne li ministre bi wax am na mais ay calcul moom. non kenn du si dóor si dóor sa doom mille aller vingt trois mille retour. mu ñaata vingt six milliards. donc <laughs> yow kooku calculam yooyu bu dee noonu la calculer fiscalité bi du mën a gis du mën a am chiffre yu ministre bi am. Ah. waaw amul niveau day ñor di niveau rek. <laughs> voilà donc nañ ñu jéggal rek ngelawaay ñi mën a fay ñu dem fay ji fiscalité bi xaalis bi ci réew mi la jëm. Ah, ci ñun lay delluwaat man xanaa sax bu doon am naa wax ma def ko ma def ko asaka pour mu delluwaat ci biir réew mi. donc pour man loolu warul nekk problème kay fa lémb du problème nañu dem ñu négocier et que nañ changer de méthode soo essayé benn mbir doxul da ngay changer méthode. Ah. essayé nga teg pression. waa ji taxaw jàkkaarloo yow ne la man personne ne peut me faire chanter. bàyyil foofu mu sedd. pour la bonne et simple raison que je ne sais pas chanter. xanaa booboo gën a deewati léegi <laughs> léegi da ngay changer méthode ñu xool nu ñu jaaree par ministère de tutelle bi comme l'a dit le ministre. Mhm. mënatuñu à chaque fois lu xew dem toog ci président. na ñu jaaree ci ministre de tutelle bi ñu waxtaan. et puis service su impôt yooyu mais ñoom am nañ possibilité dem foofu gis nga li dal assemblée nationale. Mhm. ñu ne la demal nga. Euh, rectifier règlement intérieur bu assemblée nationale. Mhm. c'est-à-dire au lieu nga dem jubali ji yow xam ne loo yàgg yàgg yàgg yàgg. foofu ngay mujj jee doo fa njëkkee. ngay nga dem wër taxawaalu dem si plateau yi génn <laughs> dafa ragal su fi ñëwee li ba dernier moment fan la ñu mujjee amatuñu yaakaar ne premier ministre dina ñëw gis nga presse bi noonu la ñu war a def mooy fa ñu nar a mujjee muy négocier jaar fa ñu war a jaar ñu dem jaari jëfa. mais di nga ne damaa bëgg négocier mais est que fa nga war a négocier fa nga bëgg a dem. Mhm. mooy imposer ne yow demoo Euh, ci euh, service ñu yore wàllu fiscalité pour négocier ak ñoom. pour ñu mhm. xool parce fiscalité wàññi sax am na ci. Mhm. soo nanguwul ne lii war naa ko mën a fay mën nañ laa xoolalaat ne la ba wàññil la li nga xam ne moom nga waroon a fay. effectivement possibilité yëpp am na. mais dem nga bañ ne la sax man damaa war a fay dix mille francs waaye sëñ bi aw ma dix mille. ñu ne la c'est pas grave. dix mois pendant dix mois defal mille francs par par mois nga fay ah. mais. mun nga xam nga ban confusion mooy am mooy da nga naan ñun bëgg nañ négocier mais bëgg nañ négocier ban façon négociation mooy par force ñun dañoo war a dem ci palais bi wax ak président. foofu la problème bi nekk. et ministre l'a dit dernière fois. c'est révolu dañoo am seen ministère de tutelle lu ñu am lu ñuy wax nañ ko dem waxtaana ji ak ministère de tutelle bi. loolu mooy dëgg non ministre bi moom. il a raison. doo du fi doo du am njëriñ. <laughs> bi. wala communiqué des médias bi <laughs> ban ban jàngat ban jàngat waaw communiqué bi moom laay wax nii déjà communiqué bi ni ñu ko bindee amul amul respect parce que tamit ñu ngay waxal c'est des agents yoo xam ne c'est des agents de l'état état moo leen yónnee. Mhm. ñu dem ay mission d'inspection ñëw xool càmbar la redressé la na la saa lii nga war a fay. lii nga mhm. amal état. booy def communiqué je pense que am na noo war a waxee. Mhm. mais nag bërki demoo ñaay def na fi benn communiqué. parce que boo demee ci fin bi mi ngi naan monsieur le ministre vous ne dites pas la vérité. il faut aller travailler c'est-à-dire. <laughs> Ah, xaw a bàyyi arrogance bi nga xam ne moom la Bougane di waxee daf ko war a bàyyi d'abord parce que gis nga sénégalais yi. mais des des médias def communiqué bi de. <laughs> waaw non des médias c'est signé par des médias mais des des médias c'est Bougane c'est Bougane amul amul. le dé est-ce que c'est pas Dany. oui. des médias c'est mais même bu fekkee ne keneen moo ko bind sax moom liir na ko. Mm-hmm. non foofu kay amul ku fay def moom liir na ko léegi moom bu ko bu ñu ko liiree bu fekkee bind wala wax taman damaa gëm ne bi daan bugaan moo ko bind. des médias na des des médias sax du moins bugaan moo fa nekk mooy buur mooy buum mooy lépp boo gisee vague de démission yi am fa fan yi passé loolu la parce que bugaan dafa yor maison ba pare bëgg moom la ngay wax. ci vague subite de nga Kader def na ko suñu chroniqueur national boobu <laughs> Kader wax na ko <laughs> nee na def na fi plateau bugaan envoyé ko message. fekk boobu neen da wax lu arrangé Ousmane Sonko bugga envoyé ko message sur le plateau naka loolu nga wax noonu waroo ko wax. Mhm. te nee bi mu ñëwee bureau tamit waxaal na ko. na ko mhm. boo toogee ci plateau bi lii ak lii ak lii nga war a wax. moo tax ma ne la day média lu fa génnee Bougane Gueye la moom moo ko bind bu dee wax ma moo ko wax léegi nag impôt domaine ñoom yi déranger wu leen yi Bougane di def nii. parce que ku mhm. koy kuy waxal lu mel noonu président la république wala son premier ministre. boo ko waxee ay fonctionnaire de l'État ñoom du leen déranger mais gis nga wax ji du ay communiqué ay lii laa amel gars yeeg warum parce que man gis ne damaa gëm benn affaire. Mm-hmm. man dama gëm ne li nga xam ne dañuy dem en tant que inspecteur des impôts et domaines ñi nga xam ne dañuy dem di defal gars yi redressement nee naa la ñoom état fii la leen fekk te état buy dem da leen fi bàyyi. Mm-hmm. ñoom état la liggéeyal mais liggéeyaluñ ay nit. Mm-hmm. tey muy muy le président Diomaye wala le premier ministre Ousmane Sonko tey bu ñu amoon nag nit problème du ci ay fiscalité lañ mën a jaar pour xeex ko te yaakaar naa ne sax ñoom loolu dañ ko jommale seen bopp. parce que injustice bi ñu dund ñoom ba àgg ci nguur gi am na ci loo xam ne ñoom man gëm naa ne ñoom ñu yàlla di ko teg doomu aadama ci kaw suuf ak forme d'injustice bu mu mën a doon. kon donc xam affaire bi lan la. Mm-hmm. affaire bi nekkul di di xas le ministre nekkul naan président de la république nañu recevoir. ñoom amuñu ak président la république problème parce que li ñuy fay du ci poosam lay dugg. Hmm. ñoom li ñuy fay président la république bu pare bañ ko fay amaana sax ñoom làmp ya tiim seen i immeuble. Hmm. xëy na xaalis bañ koy defaree ci loolu lay jógee. parce que li may xam nga boo gisee tubaab yi wala mun naa ne nasaraan si ñoom ñu fonk impo ak yu demee noonu. parce que xam nañ ne lii ci ñoom la jëm si waat gis nga boo gisee Europe. par exemple dëkk bu mel ni France ñoom bu ñu la daggee impôt. dañ lay wax ne lii lii ñu la dagg nii fii lañ ko dugal. ñoom dañ lay defar relevé ne la dagg nañ la lii fii lañ ko dugal. boo gisee ñoom seen ndox xaw a cher tuuti parce que walla courant gën faa cher ndox. Mhm. parce que ñoom seen ndox liñ ciy teg ci taxe lépp day dugg day dugg ci seen wàllu assainissement. Hmm. boo gisee Europe seen ndox xaw a gën a cher tuuti seen courant loolu moom moo ko waral. Mhm. mais ñoom de toute façon ñoom li ñu lay dagg dañ naan la fii lañ ko dugal. Mhm. Sénégal nag d'accord daan nañ dagg loo xam ne population bi daaw ñu gis impact yi muy am ci ci ci ci ci société bi. loolu moom am na mais nag loolu dafa jeex gis nga ñi fi nekk nii ñii ñun yàlla dafa ñu dimbali quoi ñun Sénégal. Mhm. waxuma ko nag parce que Pastef laa bokk de non non non mais li tax ma ne yàlla daf ñu dimbali mooy suñu borom daf ñu tegal ci bopp réew mi ñoo xam ne mun naa ne gàllankoor yi gënoon am ci réew mi wala yi ci gënoon a mag mooy ñàkk fay impôt. Mhm. parce que ñoom koo ci mu koo ci defal émission avant muy jël nguur gi danaan la assiette fiscale bi. la ñuy fexe nuñ ko yokkee niñ ko yokkee mooy bëri na luy rëcc état loo xam ne mais dafa waroon dugg ci dafa waroon dugg ci gafaga état. effectivement dafa waroon dugg ci gafaga état léegi nag gis nga évasion fiscale Sénégal. Mhm. néew ma du fi jóg parce que même réew yi gën a développé ci àdduna mi ngi fay am. Mhm. mais ku ko ci def it ñu la jàppee. dina métti ci yow kon Bougane communiqué yi muy def nii man dama ko naan lii du solution bi. di def communiqué di xas. état wala di xas ñoo xam ne ay ay confrères lañ. Mhm. bokk ak yow milieu presse bi loolu du solution bi solution bi mooy comme da nga war a fay. Mhm. boo mënul fay neen mënumaa fay bu dee mën ngaa fay nga dem wax nooy fayee te loolu da ngay dem ci waa impôt demee nga ñoom ci loolu. mais loolu du Bassirou Diomaye ba tey Bassirou Diomaye boo demoon ci moom it da lay renvoyer waat foofu rek. Mhm. parce que xam na ne moom c'est pas lui qui va régler le problème Bassirou Diomaye leen la la mën defal la benn amnistie fiscale. te loolu moom yaakaar ne bu ne la defal ay exonération noonu la defal exonération te yooyu duñ ko def parce que saa ku soxla xaalis boo fi nekk defal ñi ay amnistie fiscale ak ay exonération nekkuñ ci phase boobu xëy na tey buñ demoon ba milliards yi fees ci keesu état bi ba Sénégal mën a lebal yeneen dëkk xëy na loolu dinañ ko mën mais bu dul loolu moom non non non wala tey nga bëggoon tijji entreprise li ñu la waroon a teg gars yi oyofal ko bu defee nga ubbi entreprise parce que su boobaa ay emploi ngay absorber mm-hmm. yaa ngi jouer rôle état yaa ngi def benn mission de service public mais bu fekkee ne yow saa yi da bëgg nag di liggéey wax dëgg yàlla nag di ko def sa poche rek <laughs> état amu ci dara tey état moo la fi tegal police tegal la fi gendarmerie tabaxal la ay hôpitaux. day école yi nga jàngee ba mën a am tey capacité tijji ay entreprise ecole hmm. yooyu ay école publique yoo xam ne état moo géré woon lépp. Hmm. dama dama koy wax ma ni entreprise de presse nag. entreprise de presse yi ñoo fi dàq critiquer état bu tali baaxul ñooy critiquer. ñooy bind. Mhm. boobu tooy baaxul ñooy bind. Mhm. lu manqué ñooy bind alors que ñoom bu fekkee ni euh, fiscalité bi nga xamante ni tey ci la état war a sukkandiku pour mën a dox ñoom ñu ngi koy damm patron de presse ñu ngi koy damm ci seen i <laughs> waaw xam nga yéen sax au moins am ngeen honnêteté bu toll nii wax ne presse bi maanaam di wax loo xam ne presse bi mi koy def te teguñ ko ci yoon. c'est tout à fait le contraire ak yeneen confrères nga xam ne ñoom bu lu ñoom presse moom elle est intouchable presse kenn du ko laal. mais ay dépénalisation délit de presse fan lañ ko teg. délit de presse day dafa war a am ay pénalité parce que xamal tax mhm. presse mën na yàq léegi sa àdduna. ci lu gaaw. mais Adji Sarr tey loolu mu accusé loolu mu accusé Ousmane Sonko tey am ci presse bi ñu génn commencé woon ko dëggal ñaata nit ñoo ci de ñaata nit imam Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara ndaw tey. Amidia li ko dal yëpp presse moo ko yóbbee. ñun ñii presse bi daf ñu caricaturé woon comme des terroristes ba am ñoo xam ne sénégalais demoon nañ ba gëm ko moo ñu yóbbu kaso presse dafa nekk loo xam ne mën na defar réew comme mën na taal réew gis nga naa la wax benn affaire. Mhm. gis nga fu mel ni Rwanda. Mhm. bii tey ngay dégg am na benn rajo bu ñu daan wax mille collines. Mhm. am ku fa defoon benn émission. ne tutsi xaw mu outil yi dañ leen war a rey. loolu coûté na la la vie à plus d'un million de morts. Mm un million de morts Rwanda ba léegi boo duggee ci internet dangay gis vidéo yi mm-hmm. ay nit tiim seeni moroomu nit di leen dóor jaasi bañ sedd guy ci ñoo xam ne ñoo bokk benn dëkk ndax lan ci presse lañ jaar tey ka waxoon loolu sax temps yi passé ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy euh, jugé ba procureur def na sax benn réquisition pour ñu condamner ko à vie ki waxoon message boobu te ci rajo la ko waxee rajo mm-hmm. rajo moo taal dëkk presse stabilité réew li ko yor presse daf ci bokk mm-hmm. surtout nag bu nekkee presse boo xam ne nit ñi dañ leen jox nopp mais heureusement pour Sénégal actuellement nii sénégalais xam nañ bu baax ban presse la ñuy jox nopp ak ban presse lañ dul jox nopp mm-hmm. parce que xam nañ ne ñu ci bëri ñu ngi doon wax du yuuxu nekkate seen i intérêt bopp moo taxoon te question bi war a nit ñi war a gën a posé wu mooy la moo tax Macky Sall juge fi même pas 4 5 mois mais patron de presse yi am problème da leen daan jox xaalis wala qu'est-ce qui se passe <laughs> mais ku mel ni sunu grand Serigne Saliou mm-hmm. moom dañ koy ñaanal bu baax gudd fan ak wér na wax ko nee na fii am na patron de presse yoo xam ne cinquante millions état da leen daan jox par mois. cinquante millions par mois. par mois te moom nee na il te gëm naa ko parce que li tax ma gëm ko mooy kii mënu fi jógee même pas quelques mois yéen ñëpp ngeen am am ay ngeen di am ay problème te seen problème yëpp di tourner ci autour de xaalis. c'est bizarre. tey boo xoolee groupe bu mel ni E-Media. e tey boo xoolee ñaata. personnalité yu mag ci wàllu presse la ñu recruter bi ñuy soog a ubbi. Mhm. mais la moo tax ñu jékki-jékki rek bëgg fi am problème. demoon bay xëccoo ay match ci Coupe d'Afrique je sais pas. TFM la même chose Futurs Médias TFM ñoom depuis bi nga xam ne mag yi na au pouvoir ba léegi TFM mosoo leen fi dégg ñuy wax ci affaire mhm. euh, bañ a fay salaire. mais actuellement nii gars yi nee nañ non seulement pour mois ca lañ leen di fay. te yéex na teg mais day yéex. lan moo ko def man dama jàpp ne nguur gi fi nekkoon non da leen daan jox xaalis xëy na man Serigne Saliou Gueye am na ci preuve yëpp il ne se plaignait pas gars yi dañ doon am xaalis comme ni ñu ko daan amee mais lu tax kii dem rek problème boobu. il se réclame sax que ni ñoom ñooy bu mag bi Real. Ah, nekk nii moom boo xam ne moom saa yi xaw na yëm sénégalais de man man moom question boobu franchement parler. dama koy posé wu waaw ñun ñëpp moom la ñuy wu. lu tax ngeen am problème c'est ndax da leen daan perfuser comme ni gars yi di wax. ndax da leen daan defal avantage yoo xam ne vous ne le méritez pas on ne sait mais man li ma gëm man man aw ma ci preuve mais li ma gëm mooy état bi daan na jox gars yi xaalis suuf pour ñuy gérer seen masse salariale ak yooyu quoi parce que bu dul loolu ban lan moo fi changé. ah convention yi ngeen signé woon ba léegi mi ngi fi. xëy na ñi seen bos jeex renouvelé wu comprendre nga. Mhm. même personne yi dañ liggéey ñooy liggéey. Mhm. yaa ngi tirer say journal yaa ngi def say émission qu'est-ce qui a changé entre temps ba yow saa yi doole doole doole bi nga amoon financièrement. yaa ngi continuer. c'est ça quoi. man en tout cas li mooy patron de presse yi. Mhm. nañ waxtaan ak waa impôt domaine. am na solo te négocier moo gën seen yi ñuy def de. parce que di nga dem ba toll foo xam ne yat bi dina dal sa kaw. am na solo Ibrahima Ndao. Euh, mhm. Pastef Kër Massar. non. Euh,